laa ilaaha illa laa faal laa ilaaha illa laa yal moom léegi seex bi nee na daa bokk léegi ci yëf yi bi ñuy waxtaan sànq mi ngi nii fàttali ba yëf yi tàmbalee ca sëriñ Nasiru Touré nee na kon nag loolu la. nee na léegi tamit. ñu ngi nuyu monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye. moom la président de la république Macky Sall yabal. mu ànd ak général ministère de la culture. mboolem de service ak mboolem chef de service yi nga xam ni fan yëpp noof bokk toog di liggéey. ñu ñëw. nee na ñu ñëw. ci bis bi tey. muy bisu exposition bi. tey. nee na lée ëbb nañ ko léegi ak le ministre d'État Mbaye xam ne li ciy topp. xam ne li ciy topp. mooy doon. ngontalu. ngontalu. maam Cheikh Ibrahima ba fajar. nee na ñoom itam day delluwaat. waa kër si maam Cheikh Ibra Fall ñu ngi nii toog. nee na ñu ngi santaat tey ñaanal Serigne Cheikh Jëmb ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp. ak sëñ Amdi. sa moom dëgg la ñu ngi koy sant bu baax. njabootam yëpp ñëw nañu. nee na kon nag jërëjëf. nee na mi ngi dellusiwaat nag ci Ablaye Ndiaye. nee na dañ ñoo recevoir. dañ ñoo recevoir. kër gu mag ci président. kër gu mag ci président. ñu bu baax. ñu toppatoo ñu bu baax. président wax lu rafet. nee na président wax lu rafet moom président Macky Sall ci Mbaye Ndiaye mi toog. ndax nee na ndax. ministre de la culture. ministre de la culture. moo waroon a ñëw. moo waroon a ñëw. i def mu am ngant. yàlla dogal mu am ngant. secrétaire général ñëw. mi ngi nii toog. directeur des arts. ak le directeur des arts. ay président ne loolu loolu du ci yem. foog mu yónni ministre. ministre nag. ma ne ko président. ministre d'état. ministre d'état. ci la bokk ci ko mu ñëw bàyyi nga defal mun ma ànd naa ci. daa di former délégation bu takku. daa di former délégation bu takku. pour suba. waaye tey. mu ñëw le ministre d'État Mbaye Ndiaye. mbokk taalibe. sunu xarit. sunu lépp sunu jëwriñ. sunu jëwriñ. day ñëw fekkee réunion. day ñëw ci réunion yi. ci kuréel bi la bokk. nee na loolu nag tubaarkàlla faw nu wax ni leen wax ni rek. bisimilah. nee seex bi nee nag mi ngi sant ñëpp. di jottali. di jottali. a sant. nee na nag ñi ngi gërëm ak a sant. nee na ki ne nag mooy baabul muridina waa jàngo. nee ah, na nag kooku moo ñu xàllal yoonu ñun ñëpp. yal na yàlla yokk leeru maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina. jëwriñ ma Cheikh Makhtar Mbaye Ndiaye ministre d'État nee na mi ngi lay ziare. ci turu délégation bi ma àndal. ci turu délégation bi nga xam ne nag moom la àndal. ci turu nag le président Macky Sall président de la République Sénégal. waa kuréel bi. monsieur Mbaye Ndiaye nee na mi ngi leen di nuyu. bésu tey bii. nee na bésu tey bii. bésu mbégte la la. julli géej gi. nee na julli géej gi. bu ñu koy puukare woo bu ñu koy puukare woo nag. en tant que jullit. nee na ñun jullit yi. ah moo di rek dañuy fekk Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. nee na dañuy fekk rek ja Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. nga xam ne lenn rek la santaane. nee na lenn képp la santaane. jëm ci moom. jëm ci moom. nañ ko santale boromam. nañ ko santale boromam. allahu subhanahu wa taala. yàlla mi nga xam ne moo gën a kawe lépp. ah defal ko lim ko defal. defal ko lim ko defal. Serigne Touba loolu rek la sant. Serigne Touba loolu rek la sant. pour ñu santal ko yàlla. ñu santale ko yàlla. ku won ñu naka la ñuy sant. nee na nag dafa noo won la ñuy sant yàlla sunu borom. alquranu karim. alquranu xasaayidam yu tedd yi xasaayidam yu tedd ak sunna Muhammad sallallahu ak sunna si rasulillahi sallallahu alayhi moo tax waa kuréel bi moo tax waa kuréel bi seen taxawaay seen taxawaay pour jokkali diine pour jottali diine rek da topp ndigal nee na topp ndigal li ah ndax murit ndigal nee na murit nag amul lu ndigal moo tax bés bii ñu tuddee nee na bés ñu tuddee baabul muridiin. baabul muridiin. maam Cheikh Ibrahima Fall. maam Cheikh Ibrahima Fall. yal na yàlla yokk leeram. yal na yàlla yokk leeram. ah bés bu rëy la. nee na bés bu rëy la. biñ ko visité. nee na biñ demee ci visite bi. dañoo yokk suñu xam-xam. dañoo yokk suñu xam-xam. ci Serigne Touba Khadim Rasoul. nga xam ne boo ko jàngatee as tuut. na nga xam ne boo ko jàngatee as nga xam ne Serigne Touba Khadim Rasoul traduction Coran la. da nga xam ni Cheikhul Khadim la. looloo tax. nee na looloo tax. président la république son excellence Macky Sall. président son excellence Macky Sall. Adja Soda Xuma. Adja Soda Xuma yaag ñi nga àndal. nga yëpp. yaag ñi nga àndal ñëpp. rawatina seen sa mbokku jullitu jigéen ñi. rawatina mbokku julli fi teew ñëpp. foo dem fu ñuy na fu ñuy fu wute lu baax. nee na foo dem fu ñuy wute lu baax. jigéen ñaa fa ñaa fa pare. jégalu wante foo dem. nee na foo dem rek. ñu di fa sakku lu baax. di fa sakku lu baax. jigéen ñaa fa jigéen ñaa fa. moo tax président ne. moo tax président ni. am na yaakaar. am na yaakaar. ne béréb yu mel nii. ne béréb yu mel nii. boo ci sakoo ñaan pour Sénégal. boo ci sakoo ñaan Sénégal ji. Sénégal jëm kanam. Sénégal jëm kanam. am jàmm. am jàmm. am diine. am diine. am ay nit ñoo xamante ne ñu ragal seen borom. am ay nit ñu ragal seen borom. ah danañ la ko fi may. ah danañ la ko fi may. maa ngi ziare ñëpp. ñu ngi ziare ñëpp. di jégalu ñëpp. di jégalu ñëpp.